jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci parcelle mbooloo bu ñu ne parcelle mbooloo nag sa xel day dem ci ki nga xamante ni moo fondé lépp muy Moussa Dioum ñu di ko ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko taxaare ko àjjana écurie bi yaakaar naa ne bari na ay ndaanaan yu ngeen di dégg ci làmb ci écurie bi la ñu sosoo mun naa liim comme ku mel ni Yanda ku mel ni Franc ak yeneen ndaanaan ku mel ni Obali bu ñu ko limee rek yóbbu nañ xale yi nga xamante ne làmb am nañ ci ñoom yaakaar ñu nekk fii ci équipe bi tey nag ñu seet si ci kenn muy Bouka mu nekk xale doon daanaan làmb am ci moom yaakaar tey moom la ñu seet ngir bëgg a waxtaan ak moom ci lu baree bari ci wàllu làmb rawatina ci équipe bu ñu ko fekk nañu ko bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu baax di la ziar. di la siyaar bu wér ginnaaw ma sant yàlla di nuyu mama mari di sant Yesu Christa bu baax di nuyu samay waajur ñëpp sama pap sama yaay sama tante yi tamit di nuyu sama waa koñ sama waa gaale waa Morolan ñëpp maa leen nuyu di leen siyaar di nuyu monsieur le maire fa nekk Yves Lamine di nuyu sama grand Sarr waaw nuyoo bi dama koy teg si loxoom rek moom dina ma ko jaarale ñëpp di nuy waa parcelle ñëpp itamit 1 ba 26 baaw ma si kenn di nuyu bépp mbëru parcelle di siyaar ñëpp itamit jaajëf. Euh, Bouka nga juddoo yow. man Dakar fii laa juddoo Parcelles Assainies. far parcelle gii nga juddoo. waaw man doomu parcelle laa de du ma dolli parcelle de. Hmm. waaw. doomu parcelle nga dolli parcelle. déedéet lan moo dugal ci làmb. làmb li ma si dugal mooy nekk si koñ bi rek samay grand di bëre itamit Moussa ndam si yàlla si di ko ñaanee tamit yàlla hmm. xaaree ko aljanna. Hmm. kooku suñu papa suñu lépp bu ñu bëggee bëri rek moom am na ci part de responsabilité quoi. Hmm. waaw ndax bu doon bëri ñun boobu ñu ngi nekk ay xale dëkk si koñ bi di daw bu amee victoire ñu fay ñëw di ko jubilé. Hmm. waaw di doon ñëw itam interset fu gars doon entraîné di seetaan si gars yi. Hmm. amour bi dem ba dab ñu nag ñu dugg si loolu lañ dugal si làmb. loolu la dugal ci làmb. waaw ban année nga dugg si ci làmb. làmb 2011 maanaam ban année nga njëkk a dugg ci bëre. ban année laa njëkk def bëre dóor 2017 laa njëkk bëri dóor. Hmm. waaw ku bëri woon grand combat bi. grand combat bi. fàtte naa ko ko bëri woon mais man ak doo bu ciki ñoo ko bëri sama premier combat. doo bu ciki waaw. maa ko daan damaa tegle cinq victoire. dooree daanu si Tony sama sixième combat. Hmm. waaw kon ci defet nga toog actuellement ci defet laa toog nii nii. Hmm. dina ñëw ci loolu sa cinq combat. kan ak kan ak kan la bugg a daan. man daan naa doobu ciki Pape Melo. Sibor fils de Doubalès hmm. ak kii nii Dimle 2 ak Dimle 2 waaw. Hmm. ñooñu laa daan quoi. Hmm. ci sa combat ban combat moo ci gën a difficile ci yow. ban combat moo ci gën a difficile ci yow. mooy sama deuxième combat bi bi ma koy bëree. boo dafa tombé woon ñu def ñu tuddee goo fay drapeau. waaw Franc doon si bëre. boobu jokkeel sax su ma juumul moo bëri grand combat bi jokkeel. Hmm. boobu dama si bëri woon quoi bëri si ak bëre bu métti. Hmm. waaw. Hmm. nga duggoon ci làmb def palmarès boobu ci làmb sa cinquième combat nga jël Tony Junior. sixième sixième combat. Ah. nga jël Tony Junior bi ngay jël Tony lan moo leen boole yéen ñaar ak lan moo tax nga jël ko. Tony coow rek moo ñu boole woon coow rek moo ñu boole woon coow boo xamante ni du fii sax côté village la woon quoi moo ñu boole woon. i tamit lu gars di wax rek pour devenir un grand champion foog nga hmm. bëre ay champion hmm. yee looloo ma dugaloon si moom ndax moom champion la ndaanaan la coow bi leen boole coow lan la no maanaam ay waa sama côté fii wax fii côté mu wax itamit genre yooyu waxuñu côté bii wax fii ah. wax fee da ngeen a bokk gel da ngeen a bokk sëriñ da lan moo leen boole bokkuñu gel bokkuñu sëriñ som waay la rek moom borom baax lan moo leen boole lan. maanaam ay coow làmb rek dañoo dem bañ naan mun ñu bëre rek moo tax ñu bëre. jaadu na. waaw na adversaire du adversaire waa comme genre yooyu rek la mais moom jotewuñu dara mosuñoo jote dara. Hmm. ñoo bokk sax benn groupe fan si club foofu village. Hmm. bi nga koy jël boobu gëmoon nga ni amoon nga gëm-gëm ni mun nga ko daan. am gëm-gëm moo tax ma jël ko ndax bu ma ñëwee taxaw ma xaar ko. ku nekk ak ma doon naan bërikat la man damaa ñëw dóor ko song ko bëri si moom. Hmm. waaw ci ban erreur nga def ba Tony daan la. ban erreur amaana bu may bu may plaqué ma koy mbot foofu noonu maanaam foofu daf ma gën a gaaw quoi erreur bi foofu noonu la rek si diggante hmm. boobu noonu la. Hmm. daf la gis gisoo ko. waaw ngeen bëree Tony daan la. Mm-hmm. lamb bu doxee ba ci kanam di nga bëri waat moom. non loolu xanaa ñu si kanam rek loolu si kanam loolu mën nañ si waxaat si kanam. ku la dóor abal yet bi. baax non nekkul ku la dóor la abal yet bi de. non mais dama bëgg seen diggante yee ñaar lan la. maanaam lool noonu. Ah. am na ñu si war a waxtaanal waaw samay kilifa ndax après combat bi dégg naa si ay wax wax woon nañ ñu waxtaan nañu. Hmm. Hmm. mais bu weesoo sama côté village ak parcelle moom ku ma dóor daf may abal yet bi te kenn du ma dóoraat nii kenn du ko gaaw a dóoraat de. Hmm. waaw bu neexee yàlla. nga duggaat ci combat. Ah. nga war a bëre la quatorze août. Mhm. kan nga jël. Guillaume Junior. kuy Guillaume Junior. baar ñi la ne. xam nga ko. xam naa ko nii nii rek ndax seetaan naa benn combat am. moo kan. moog booy séeréer. Hmm. waaw combat ba nu mu demee noo gisee. moom moo daan noo ko gisee moom. ni ko gisee mbër la champion la. di ko ñaanal wér rek ba bis ba rek. ma ñooñ duñ samay duñ samay yoonu làmb quoi. Hmm. baa ji ni hmm. waaw man du man ak ñooñ ñooñ kooku si amaan defet moom booleeg moom rek. man ni ma làmb xamee xamee ko quoi moom. waaw man sama yoon làmb si boy yi ñu nekk si temps bi fii di cappi cappi la. Guillaume Junior mooy nekkoon sa ñaata adversaire bu ñu doon wutal Boka parce que dégg naa bokk nga ci mbëri yi gën a naqaree wutal adversaire man nag loolu doon na problème ci man mbëri koo ci wax mu ne dañ may daw dañ may daw dañ may daw. te booy yi fi nekk dañu am problème adversaire ba jii li man depuis début saison lañ ma commencé wutal adversaire wutal nañ ma façon adversaire bu ne looloo ma teree bëre ba fii nii amaana nag bañ a def année balance moo tax ñoom am di mujj maa ne ma jël mbër boo xamante ni rek même buñ ko xamul sax naa bëre. Mm-hmm. mais am na ay mbër yu fi ne jox nañ ma seen avance ñu delloo ko barki seriñ Touba. yow man benn ku si mel ni Ama Malika jox nañ ko sama combat si groupe Fallou bi dox nañ ko maintes fois mu bañ ak booy bii nii Tony mujj daan nii combat am ku mujjee daan. Mm-hmm. yeah. mais est-ce que du dañ la dañ la raw moo tax bëgguñu. non raw boo maa mën a raw ma def ñaata combat laa def six combat laa def cinq victoire benn défaite. ñoom nañ maa mën a bañ mun ñu maa bañ. Hmm. waaw. le 14 août lan lañ mën a xaar ci yow ak lan lañ war a mën a gis bu kaa ñëw wanewaat ko ci wàllu làmb. esprit d'un champion laay ñëw wanewaat rek focus si lu ma jóge woon ma focus ko ñëw tegaat leneen wane ni maa ngi dooree bëri premier combat arène waaw jël lépp teg si ginnaaw ñëw wane jàmbaar jom fula am hmm. ndam nag si kàttanu yàlla bu neexee yàlla incha hmm. allah. da ngaa jógee ci défaite te da nga war a jëmaat ci. damay ñëw damay confirmer damay ñëw leeral wane ni man liiru du sama amaana ndog-ndog bu fi bu fi jaaroon la rek. Hmm. waaw hmm. ab jàngat laa si jëlee rek. Hmm. am na solo écurie bi parcelle mbooloo lan mooy manquement am lan la parcelle mbooloo manqué loo xamante ne vraiment bu ngeen bu ngeen sañoon autorité yi dëkk parcelle ñu teg leen loxo jàppale leen. parcelle mbooloo ah fii am na lépp fii lu ñuy suñu manquement mooy ni maam li fi Moussa Dioum jógee rek. Mhm. mooy suñu manquement. grand yi fi newoon ñi demoon nag ñëpp ba tey seen loxo yee ngi fi seen xol a fi mhm. baaw ñu écurie bi. Mhm. amaana nag écurie bi defar na ay champion champion dafa jotoon rek ñu war a dem. ndax loo gis ak appam day jeex. ñoo itam di leen nuyu euh, parce que ak ñoon jotee fi jaar dem itamit ñëpp. mais écurie bi amul benn manquement gaa yëpp a ngi fiy ñëw am nañu coach am nañ lépp paay dañuy ñëw toog diñ seetaan gaa yi baaw ñu gis nga coach yi nii ay ñam Cheikh Nguer ñoom maam Less ñoom grand gen nekk ak ñooñu sax beneen équipe lañ ne mais dañoo ñëw fii boole ko lépp def ko benn ndax parcelle benn la quoi. Mm-hmm. manqué ñu dara moom am nañu ay mbër am nañ lépp. Mm-hmm. sant yàlla. Mm-hmm. jàppale benn jàppale bi mooy autorité yi ñëw di jàppale booy rek di leen gëstu looloo si des di ñu gëstu jàppale ñu bu baax. kon sa combat bi jàpp nga ni dinañ la ci jàppale. non am naa si yaakaar am naa si yekin bu baax kay. di si woo monsieur le maire Go Faye maa ngi koy woo ak suñu meer parcelle bi Jamil Sané. di woo Guèye original Moussa sama DG MEF di woo ñëpp ay ñoom Edu Maurice di woo Ablaye Dieng go Maroc di woo gaa yëpp ñëw ñëpp ñëw jàpp si. Hmm. ak Demba Soare sama DG maa ngi koy woo bu baax. Hmm. Hmm. ah yow da ngay ni nii actuellement nii yaa ngi woote nii. laaj rek joxal ma joxal ma Baylaat eh, micro Baylaat lan ngay sëggalaat la jëlal mikoro bi jëlal jëlal micro bi actuellement ñëw nañ ci équipe bi fekk la ngay entraîner ak say moroom say natango euh, lan moo tax sa combat ba actuellement nii may wax ak yow bàyyi laat mënagul pare daa amul licence daa bëggagul dugg ci arène wala dafa am lu ko téye. non ginnaaw ba ma sant yàlla baay jili di hmm. julli si yonante bi sant suma ñaari waajur. Hmm. ñaanal Moussa yàlla na ko suñu borom yërëm xaaree ko àjjana. amiin yàlla na suuf si kawam. Hmm. non du loolu sax. man hmm. amoon naa combat le onze décembre. Hmm. waaw mais yàlla dafa def ne làmb ji dafa yàqu. biñ dawalaatee tuuti si la ndog-ndog amee sa waay xaw a feebar. waaw si lañ nekkoon nag. waaw. jàpp nga ni euh, lu sa grand ci làmb. Mhm. ñàkk ko bàyyi laat mën na koo indi. lu raw loolu. xoolee ma ngir Moussa Dioum fu mu tolloon si làmb non non fu raw foofu laa bëgg a yegg. te incha allah naa fa yegg. Hmm. waaw parce que loolu sama gëm-gëm la. Hmm. baa jili loolu sama hmm. gëm-gëm la. yow bu dara sax yow loolu xam nga ko. waaw loolu sama gëm-gëm la. ñoom Balla Gaye yegg. fa laa yegg te incha allah fa yegg. lan moo maye. lan moo maye entraînement entraînement moo maye gëm sa bopp loolu moo maye kese. mais pas moytu lii defal lii non non entraînement gëm sa bopp nga fii dama fa yegg nga yegg fa mais nekkul na question da ñaan wala dara non non ñaan deuxième position la. Mm-hmm. da ngay entraîné gëm sa bopp xam yow yaay kan. Mm-hmm. waaw looloo lay may li nga bëgg. Mm-hmm. am na solo yéene bi nga am ci làmb yàlla na la suñ borom jàppale. ba nga toll fi nga fi nga sa rêve ci làmb. parce que yaakaar naa ne Moussa Dioum teg na loxo ku nekk rakk Moussa Dioum jot na làmb jàppale ko. amiin maa lay jaajëfal maa ngi nuyu sama grand Malick hmm. maa ngi koy nuyu di nuyu soxnaam ummi. Hmm. di nuyu sunu ñaareel bu ñaawul bi. Hmm. ñu koy wax Ndeye Ndiaye maa ngi leen di bëggee bu baax a di bëggee waa parcelle gépp di nuyu Cheikh Bombali Top maa ngi koy bëggee bu baax. di nuyu sama gaay yëpp. waaw maa ni di bu baax a baax a baax. jaajëf am na solo joxal ma yëpp sax. doxalal yow actuellement nii fi mu toll nii yaakaar naa ne bokk nga ci ñi xale yi yaakaar ci làmb sa combat bi mujj yaakaar naa ni da ngaa actuellement lan lañ mën a xaar ci yow. waaw avant tout nuyu téléspectateur yëpp. wax rek làmb fi ne nii li ñu di xaare mooy lu bees. Hmm. yab sa no look ñu wax. Hmm. kon sans parole la amuñ lu ñu mën a wax lu dugg ci bopp nit ñi jëf rek a ñu war te ñu ngi ci tànk yi ñu ngi liggéey ànd ak suñuy rak yi nekk suñu ginnaaw. Hmm. waaw mooy loo manqué. lu ñu manqué. yow loo manqué yow. xanaa suñu bis suñu bis bañ tombeek bis bi ñu jël bu yàlla ñëwee rek mais manqué wuñ dara. dama gis ni lépp yi mbër mu ngi ci yow. corpulence bi xam-xam bi bëre hmm. mais xaw ma lan mooy sa ah, problème. jaam ak pexeem yàlla ak dogalam man mbër yi ma daan bapat tey ñoom ñooy nekk champion sama kaw mais ndogalu yàlla la danga leen koy nangul di leen ñaanal yàlla seen carrière yàlla na continuer noonu mu doon ay ndami ndam. Hmm. mais xam naa ni. yan mbër bu comme ñan. bu dee dix bu kelee dee dix. Hmm. neuf ci bopp bi. comme ñan. bari na boo fi toogee di lim ñenn ñan nga bëreel limal ma ñetti mbër yoo xam ne daje nga ak ñoom mbapat. bëreeg ñoom waxuma nga daan leen wala ñu daan la bëreeg ñoom rek mbapat actuellement ñu ngi toj. ku ci mel ne suñu grand góor a soog. Hmm. bëri nañu mbapat bés yaaw final. Hmm, hmm. ak yeneen ak yeneen. ak ñaan ma koy ñaanal yàlla nag ci combat bii mu jëm nii. te loxo ci suturaal may ko ndam bu sedd guy. ci kaw Fils de Balla. Fils de Balla da la am xale bi moom ragalu dara ak kan. ay Mbacke fay sama génération mënu ma lim ba ci àll ba ci biir yi ay Kaaw Gourdin ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni man ak ñoom benn cong la. mais tey mënoo comprendre daal mënoo wax lépp. am na solo joxal ma Bouka Bouka maa lay jaajëfal bu baax Guiro Seras Giro yow sa combat bi. Giro wuyul <laughs> Giro bi gërëm waaw day laa ko joxal ma ko bi gërëm jàll joxal sa combat bi ñuy dox Giro adversaire bu ñu la jox ñu Giro delloo la avance ku ñu la jox nga ne delloo nga avance lan la la mooy sa problème. non man du yàqoo man wax dëgg yàlla. du yàqoo ci yow ñaata lañ la doxal mu yàqu. nii nii quatre xaw ma cinq waaw ñaata adversaire. kan limal. waaw yow bàyyi jëli du fi nekk di leen lim nag. di leen may benn kii bi ah da nga leen may promotion. ah kuñ ma jox kay mu jël avance bu xëyee delloo loolu moom la concerné de amul lu may wax ak kenn. ma ñëw Abou Ndiassé dañ doon dox sa diggante moom. waaw. Hmm, ci kan la yàqoo. en tout cas man ñëpp laay bëreel. pare ci kan la yàqoo dama la laaj ci kan la yàqoo. si ñoom moom. ci abu Ndiassé la yàqoo. waaw ba tey mu lay dégg ak kan. Ndiaye Tine. dañ doon dox sa combat ak moom Malo Seras. Ndiaye moom. waaw ci moom la yàqoo. akaan Malo Seras. ak Qualify 2 waaw. ak Qualify 2. te ñoom ñooñu ñëpp ci ñoom ci ñoom la yàqu. làmb du yàqu si man bàyyi ji. mais kon bëgguñu la kon mooy loolu. da nga war a def ay ay ay épreuve ci kanam. amul benn problème. lan la lan moo tax gars yi di la daw lan la. dégguma lan moo tax gars yi di la daw lan la. ah bàyyi ji nag coow lu jib de instant aw ma làmb nii xam nga su ma waxee nii day damay tooñ gars yi. amoo làmb bëgg nga ay adversaires yoo xam ne war nga mën a wax adversaire yi nga war a jël wala ñi ñi la yaakaar ci lam parce que kuñ wax ñu ne non bugguñu la. waaye Badiou yow mi xam nga li ma lay wax promoteur ñëw na si yow ñëwaat si yaw man nee naa ah, làmb du yàqoo si man mooy loolu. Hmm. mais yaa ngi say entraînement yaa ngi say entraînement. déggu ma yaa ngi say entraînement. ñoo ngi si lépp chaque jour làmb la ñuy dund. saison bi de bu ubbee bokk nga ci mbër yi koy ubbi moom. bu soobee yàlla incha allah. Hmm. ak adversaire yu weex. ku ñëw baax na. maa koy jaajëfal bu baax joxal Euh, Bouka Bouka maa lay jaa jaajëfal bu baax a baax a baax. baa jiiri waaw bu ko defee rek ñu woote rek ñu daal di tëj. waxay yeneen bëri ku ma ciy jësi na takk ngemb contact. waaw waaw ngeen bàyyi buuxante bi eh, contact waa staff bi waa bëree. amaana rek xam nga si staff rek. ñam mm. ñooy ñëw ñoo lay wax li ngay def quoi. Mm-hmm. ndax bu doon man bi nga ñëwee da ah, ma summeeku. Mm-hmm. mais bi nga ñëwee dañ ma sollowaat samay yére. d'accord gën a mais tamit di santaat ñëpp waaw di nuyuwaat ñëpp waa parcelle un ba vingt six bàyyiwuma benn écrit mbëru parcelle yëpp maa leen di siyaar di leen waat di nuyu sama gars yi ñoom lamp yi di ko ñaanal yàlla ma ko combat ak baylaat yaa giro sama doomu ndey sama lépp di ko ñaanal tamit mbëru parcelle mbooloo yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu Père itam kuy sonn si ñun la pa noonu hmm. di ko nuyu di ko gërëm yee di bëggee sama gaay yëpp képp kuy bëggee Booxa maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm famille Diaw Kéemaan Góora Diaw Tafa Diaw Xaadim Diaw ñëpp baaw ma kenn di leen bëggee Lamine Sagna di bëggee sama waa koñ ñëpp ñëpp ñëpp képp kuy jàppale Booxa Yves Ndiago William Kul noon gaa yooyu noonu yëpp baaw ma kenn sama mafia bi ñëpp ñëpp ñëpp waa peron ba yee waa daaxa bi tamit di leen sant di leen gërëm bu baax a baax waa daaxa bi seen président mooy Petit Caatu Mari mu ngi nii sama raxal la moom xaar leen ko déwén day ñëw borom mafia bi. Hmm. yee waa gétt ga ñëpp di leen siyaar waa Faja Inta di bëggee ñëpp sama mafia bi grand Thieu maa ngi koy siyaar tamit. di santa ñëpp di woote daal le 14 août di woo ñëpp ñu def mobilisation bu am doole ñu dem stade. Hmm. waaw yàlla may ñu ndam ñun doom parcelles yi fay bëre yëpp. waaw muy man Goro Sock Moussa Dioum 2 Tafa Leer 2 ñëpp maa leen di ñaanal yàlla may ñu dam yee di santaat itam parcelle mbooloo bu baax a baax a baax a baax yee yaa ñaan yàlla ñu tëj saison bi ci jàmm tëj ko waaw parcelle daal comme ni ñu rek ñoo fi ne te yàlla nañu yàgg ndi fi ne incha allah di la jaajëfal jiili di bëggee di la siyaar doomu tànta ak jël soxna nag gars yi wax si suuf. jërëjëf maa lay jaajëfal waaw grand Jean Mam Lees Moussa Pël. Cheikh Nguer ak Malick sama cumbukaay Ahmed désolé.